alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi lam yattaxid waladan walam yakun lahu sharikun fi lmulk walam yakun lahu waliyu min adh-dhull subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw julli gi ak xutba bi waa ah, dañuy nuyu kilifa yu baax yi fi teew yépp rek sëriñ yi ak sëriñ Abibou di njiit li ci ñoo fi nekkal sëriñ Abou Baraka mi nga xam ni mooy borom barab bi te moo na fa yebal itam ak sëñ Mouhamadou Lamine Bousso mi nga xam ni mooy jiite ajjuma ji ak mboolem ilimaan yi ak mboolem ñu doon naafila ci weeru koor gi ak mboolem ñu fi doon jaamu si yàlla ñëpp ak njabootu sëñ Tuubaa gi fi teew gépp mi Mbàkke bu soobe ñëpp ñu ngi leen di nuyu di wax ni nag wax ji sëñ Abibu moo ko moom ndax moo fi toogal sëriñ bi sëñ Abo sëñ Abo toogal fi Seex Muntaxa kon noonu amul ci kàddu lu dul nuyu suñ kilifa yii fi teew yépp sant leen gërëm leen ci wéttali gi ñuy wéttali barab bi di fi jëwi ndigalul sëriñ bi te lépp jëm ci lislaam ak ak taalibe ñu ngi ñu ngi nuyu Seex Muntaxa bu baax di ko sant di ko ñaanal di ñaan suñu boroom mu dimbali nu yàggal fi ab jotaayam may ko wér defal ko jàmm ba li bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp mu liggéeyal ko ko ànd ko njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñu ngi ci ginnaawam topp ci moom moom it waxtu wu nekk mu di leen gërëm di leen sant ci seeni taxawaay waaye di ñaanal di nuyu Serigne Abo mi nga xam ni moo fi nekkal Serigne Fallilou te moom barab bi yabal nu fi nu teewal ko fi. sëñ Abibu ak sëñ Aliyu ak bokk yu baax yi ñu àndal yëpp gi fi nekk do ñëboot sëñ Tuubaa gépp yor kàddoom loolu rek lañ amoon ci luñ ciy wax xanaa di soññee rek li nga xam ni weer wi laaj na ko muy weeru koor gi ak li koy tax a sell te muy muurum koor mi ñu farlu ci bu baax a baax a baax ndax niñ koy waxee weeru koor lañ koy aj féeg jullit bi joxewut asakay muurum koor duñ ko jàllale noonu lañ ko waxee ñu ñu koy jox xam nañ leen ni muy toll it borom xam yi wax nañ wax wax nañ ko mooy ñeenti mudd ci mudd bi yonent bi sallallahu alayhi wa mu tolloog ci ni ko borom xaw xam yi natalee ci gën a mat ñaari kilo ak liibar wala lu ko mat ci xaalis bu dee xaalis yit wax nañu ñaar téeméer baax na bopp bu ne ñaar téeméer boroom kër bi nag moo ko war a génne ak mboolem li aju ci moom su fekkee mënuñu ko waaye war na góor war na jigéen war na gone war na mag ki nga xam ni mooy boroom kër gi itam ñamu doon dundal ku wacca mënut moo leen ko war a génneel kon ñu farlu ci bu baax a baax a baax ndax day sellal koor gi di ko gën a setal ci rëcc rëcc yi nga xam ni doomu aadama mënu ko ñàkk def ci biir weer wi muurum koor moom moo koy setal ba noppi itam nekk ndimbal ci masaakin yi nga xam ni bu tuwoon loolu dañuy wër wër ngir am luñ dunde suñ borom bañ ñu wëreelu ci bis boobu nag tax mu wax diggal yonte mu falatal muurum koor ci ñu jox ko ñoo ñii nga xam ne ñoo ko yeeyoo kon kàddu yooyu rek lañ amoon luñ ciy wax lu jëm ci ci sariya bi xaqiiqa bi nag ah, sëriñ Abi mu fi nekkal sëriñ bi ak sëriñ Aliou ñoo ko yor muy ndigali sëriñ bi ak i tereem ak li ñu ni taalibe war a mel lépp loolu mu ci seen loxo noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla nañ ko teewee na gën déwén te kenn bañ a manqué. mooy Sénégal sëriñ Tuubaa mooy lislaam mu jóg taxaw taxawaay boo xamante ne kenn mësoo gis àdduna waaye lépp sëriñ mooy kawtiifu àdduna rek lay doon ndax sëriñ Tuubaa mbiram bi sëb day bi sëb day gën a feeñ rek. Eh, waxoon kawtiif laa ci ñi nga xam ne jiitoo ci. kilifa yooyu kon di jaale koo xamut te yëpp daal daana wax ne nit si gin ndigaale bu si génn nga xam waaye moom def na ne li mu def dafa xam ne sëñ Tuubaa yàlla jox si maamul war a si lay fi yeddi maa dum tu mi naa xaaj bi àndi kon képp koo xam ne yaa fi nekk sëñ Tuubaa nosu bi def yàlla ci sa loxo la ko teg ku mu ne ak ku naqe loolu yàlla dogal moo tax bi bi réew mi amee mbas musiba moom yi nga xam ne ay manifestation te moom ab dëkkam kenn manifesté dëkkam kenn dëkkam kenn lëkk fa ay ay magasin waaye daa xam ne Sénégal gépp suñu toog jaboote kon fu am fu Sénégal lekk rek donte du julli sax suñu toog war naa dimbale war naa taxaw ndax itam jami wala yàlla subhanahu wa taala itam jami wala koo ñaan yàlla amoo xejjeg seen ci lenn du yàlla rek loolu suñu toog am na responsabilité loolee moo tax mu jëf jëfiñ jërëf ji ñu jëf loola la moo xam ne mu di yëpp dégg nañ ci bokk suñu toog ñëpp dégg nañ ci ndax loolu rek la mooy fi bàyyi sàmmal ko yëf yi ndox ndono sàmm ko téel ko moom itam mu ànd ci ak ñi mu ko war a ànd ñëpp loolu ñu koy sant baax di ko gërëm di ko sant sëñ baax nag waaye di ko sant waa réew ñëpp waaye di ko sant njaboot sëñ Tuubaa gi xam bokk na ko ñoom di ko ñaanal subhaanahu wa taala mu dimbale ko mébétam yi ak yéene yi li muy def sëñ Tuubaa lépp yàlla àggale ko te ànd ko tam bañ am benn ndog bañ am benn ndëpp sëñ bi sant na njaboot gépp sëñ Abu wax na bu dikkee naa naa naa ko leeral lool yi sant ko tuddee njaboot suñu tuwaay rek bu ñu tuddee suñu tuwaay ñëpp dugg na ci biir bannu bàll yëpp a ngi fi bannu maaram yëpp a ngi fi kon solo bu ñuy lim ndax boo limee da ngay da nga mën ngaa waaye da nga du waaye ñu jël nuyoo boobu nga xam ne mooy nuyoo njaboot suñu tuwaay teg ko ci loxo sëñ bi muy suñu kilifa muy suñu àll yu muy moom teg ko ci loxo kilifa muy sëñ Mamour ndax ñu fi noonu lay doxee euh, di nuyu ci ñi xam ne bokk seex yi nga xamee ni ñoom ñoom la seen maam fekk seen Sëriñ Tuubaa mu tibbal leen ñu ànd te moom nekk ci liggéey bi euh, waaye di nuyu mbokki Bousso bi nga xam ne ñoom ñoom lañu féetewoo diine ji taxaw ko ñoom ñaan ñaan leen sant baax di leen seet di waaye di jël nuyoo sëriñ Sëriñ Fall yëpp nag di nuyu itam suñu Cheikh Cheikh yi moom naka njëkk ñoom ñoom la àndoon ci démb ñu ne sant baax di leen gërëm ci diina ji waaye euh, suñu xaadim mi nga xamee ne moom moom mooy tudd sa bopp rek la suñu xaadim jël nañ nuyoo jabar soo aw bu sa gépp teg ko ci loxo ndax aw bu soon aw bu sa kenn la mooy suñu falilu mooy suñu affaire rek kon suñu xaadim ñu ngi leen nuyu baax di la gërëm te te jot yi nuyoo boobu ko teew ñu ko loxo suñu maam mi nga xamee ne mooy kilifa kër gi ndax képp ko xam ne soxna aw bu sa mooy sa maam tey ji soxna suñ boobu mooy mooy mooy sa waaye sant yi ñi nga xam moom rek ndax bu ñu waxee mbir rek ñëpp dugg ci biir ndax waa kër suñu affaire bu sëy ak waa ñoo ñoo bokk soxna ak bu waaye lépp lu soxna bisoo bi jur rek ci nga bokk bëkki dem rek dem nañ affaire dafa siyaar yoo xam ne siyaar yooyu ñu maa ngi wax suñu xaalis bi rek bi li ko waral dara warlu ko mooy suñ tubaab boo ko jox sa bopp sa tey jël day dàq sa démb bëkki dem ba ñu ne affaire gis nañ fa jëf joo xam ne la soxna aw bi su defaloon way jur ma rek la ko yàlla fayee loolu soxna Awa Bousso sëriñ tuwaa dafa fay bis moo ko bu ñëw mu njëkk ci alal ni ko awa sa wajur su sama nijaay sëriñ Bousso bi daa sa sa sa ndey alal nee naa ko fayal njëkk ci alal jox ko mu ne ko ah alal jaa ngi nii ne ko ah mu jébul naa ko sama ndey ndax sama ndey kat sa woote bi bu ko si waaye ku fa tey jii saa yu si rek ñëpp gis nañ ko tey la la lépp lu jëf tuwaare def nañ ko foofee ndax képp koo xam joxal nga sa bopp kat tey jii sa sa bàmmeel mooy mooy yéen ñi bàyyi ginnaaw kon ku ne xam ne ku xam ku ne xam ne ne ku bàmmeel bu yor dawaar bi ci kaw suuf rek kooku xam ne borom ci am kon nañ jox suñu bopp Sëñ Tuubaa te ko jaxasee dara te sëñ bi xam ne bu dikkee daa fàttali xale yi euh, ak borom kër yi ñu ñoo gën a farluwaat ci yar bi ndax seetlu nañ ci koor gi am na yu bari yu fi xew yoo xam ne war naa mën a ñàkk ci dëkk bi mooy ay football ay ay welo yu ñu war dàqee ak yooyu yëpp fii ne war nañ ko bàyyi ndax loolu du wàllu dëkk bi dañuy dem di naa fii la gone yi foo di yuuxaloo def yooyu te loolu xamee suñu Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa dañ ko xamee rek dëkk bi boo xoolee ren jii li fi naan ci alxuraan jàng fi alxuraan amu ci benn réew adduna si daa mel ne Sëriñ Tuubaa bisoon day gënu kon li ma waxoon ne ma nekk ni xuraan loolu day feeñ bi set kon ñuy sant yàlla ci loolu baax ñu gën a farluwaat ci yar bi gën a jàngal ñi eh, ndaw ñi lislaam gën a naqtal ci sëriñ bi ak nan lañuy doyee sëriñ bi Sëriñ Tuubaa moom jukko rek la wax naa ko ay yoon eh, eh, mooy day jëggale te jëllale te jariñe ab murid fu mu dem war nañ ñëpp dañ ko xamee na Cheikh Modou Moussa Cheikh Modou Fadil ne leen na ngeen defar seen jëmm yi ba ku la gis xamee leen waaye na ngeen defar seen barab yi ba ku mën a ñëw ci wàcc a a ñëw a wàcc ci yéen na ngeen defar a ku leen a baax kon loolu jikko mu na faa de sëñ Tuubaa mën la bàyyi ci àdduna yoon yii lu baax man la waaye lu yàqu man la boo kenn ku ne defee rek liñ bëgg dañ ko am mi ñaan yàlla def jàmm ci réew mi

te yàlla ba suñu pas-pas dara suñu bëgg sëriñ Tuubaa yàlla gën a yokk bi set suñu jëf jëpp yàlla na ko yàlla jël jaxase ko jëf sëriñ Tuubaa te moom ku jël ku yàlla jëf si jëf jaxase ko moom dara du si yow kon koor yeeg woor yi ni ko suñu moom suñu Modou Bousso suñu Moussa Fall daal waxee rek jëlee suñu koor ak suñu naafila yëpp te ko jox ko bi mu tegoo ci loxo sëriñ Tuubaa kon jërëjëf kon sëriñ bi suñu ko sedd guy maa ngi jéggul ñëpp eh, tey yokk ñaan rek kilifa gi mu yàlla bàyyi ko fi bàyyi fi suñu bàyyi fi njaboot sëriñ Tuubaa gépp rek li euh, tàmbalee ci kër Cheikh Modou Sa ba ci Cheikh Mourtala ak ki tàmbalee ci Mame Mor moom Soxna Jaara ba ca ba ca kër Serigne ak li tàmbalee ci bandu maaram bépp ak maam ba lu bokk ci maam Balla ak maam maaram ak sa defar euh, loolu dana ci tumaal bi set ñu naan nag ab Baye Fall ma Baye Fall la nangu naa Baye Fall Cheikh Fall la bëgg dama ko bëgg ngir bëgg gi bëgg Sëñ Bàmba rek moo tax bëgg daa dafa bëgg Sëñ Tuubaa daa ji daa di surtout daa di Sëñ Tuubaa man nag dañu ñaan yàlla mu wàll ma jàngoro yooyu te su ma ko yàlla yàlla nañu ko wàll te yàlla bu mu wér nag jàngoro jooju yàlla lu muy def nañ nañ ko def jàngoro bëgg Sëñ Tuubaa ba rëy ni nañu rëy ñu ngi sant yàlla baax di la gërëm maa ngi yow sa wax ji da ndax bu guddee dana dana dana yi fi yi fi daanu ko dugg te te te te bëgguma bëgguma bëgguma bëgguma saara ndax sama kilifa toog te yëkkati say kaa say kàddu sa sa kaw kilifa duy tekkin waaye sëñ baa ngi sant ñëpp di leen gërëm mooy sëñ aboo ñaana ko liggéey bi mu liggéey sëñ bi yàlla jàppale ko ci dimbali ko mu àgg jàmm te ñëpp jàll ko moom sant na leen gërëm na leen mi ngi soññaat liggéey bi tamit ñu ñëpp ñu gën ci góorgóor rek su kenn maanti bu noppi bu loolu jàppee suñu maam moo ñaan naa la ko rek liggéey bi nga xam ne suñu tuwaa bi ñu koy bi ñu koy bi ñu koy bi ñu koy taxawloo muy tuwaa ci kanam ji maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax ñëpp gis naa seen taxawaay kenn ku ne ci yéen nam taxawee nam nam ci jëf gis naa ko ba ci social ramadan bi ñu doon def te suñu seen doom ji jiite moom suñu mutulaa moom suñu Abdou Fatah sant nañ ko ko ci ndax day la ñaari junni nit ak téeméer juróom-ñett yoo xam ne dañu woon ñëw ñu jox na ay ndimbal yàlla jotaan na juróom-benn téeméer nit yoo xam ne ay ay bokki la xarab la yoo xam ne seen tur ñu ci biir ñooy jox lañ lañ mën ngir yàlla kon loolu nga xam ne Tuubaa ci kanam dañuy wax ne sàqam Sëriñ Tuubaa la sàqam Sëriñ Tuubaa nag ku ku ku ku sérieux ku ne mën nga jaxit tafsir yi mooy mooy mooy aw ci yoon rek waaye ku baadoo la ñu def li ñuy baadoo la kon nañu góorgóorluwaat te yëpp ngeen farluwaat ci fas ñu yéene lépp loo xam ne Sëriñ Tuubaa bëgg na ko dëkk yi taa lu yàqu dana maasale ku am kàmm goo xam daa nekk si bunt kër sakk ko ku am sën si bunt kër dana sakk ko ndax Tuubaa ci kanam mooy ñun ñi rek kenn ku ne moom nga kenn ku ne mooy ku bëgg a def dëkk bi jëm ci kanam te ab dëkk nag defar boppam ay nit ko defar gën a góorgóorlaat kenn ku ko joxe bu murid yëpp maasi woon defe ko joxe ko li ñu bëgg Tuubaa dana ne fi ñuy wax ba mel noonu te loolu ñun ñu ko def ndax ñooñee la tax ñu am ko ay nit képp ñoo ñoom yem waaye ci ñoom te ñun am nañ amut am nañ Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa goxos am na te mis na si la waxoon ndëkk bi na mel na mel turloo kon gëm naa ne miir yi fee nekkul ay mar nekkul ay jamaa ni or Touba la Sëñ Touba bëgg mu nekk nii may wax toujours rek ci boppam war nañu kenn waru fay ndox kenn waru fay courant kenn waru di ko waxaat fu mu toll nii ñu naan wax daan ko wax loolu mënut nekk mën na nekk Sëñ Touba daa am lépp yàqu di manaafi'ul buldaani xatti bi laa sami ab daani mooy mooy xéwal yi rek kon yi yàlla du xew ni Sëñ Fallu daa ñaan rek bu xéwal nekkee ci kaw yàlla nekk ci ngi suuf bu nekkee suuf bu day dugg suuf nekk peut-être mu génn bu soree na jege bu jegee na na bari te bu baree na sakkan te bu sakkan ni ko jariñoo kon maa ngi yemale foofu te ñaan yàlla nañu yàlla at yu bari te kenn duñ fa mag fii déwén ñuy faatu ñu ngi leen jaale seen i bokk bëkki rek suñu mbokk bu gaa yi kon mu suñu soxna Moussa moom suñu fàll ñëpp ñaan ñu ñëpp ngeen sàkku ñaan saa ko te te ñëpp rek ak mbooloo mbokk fi bàyyi ko rek ñu ngi koy képp koo xam ne jaa bàyyi ko rek te ñu ñaan yàlla dugal ci njëgal suñu borom subhanahu wa taala sëñ bi teew at yu bari Euh, lépp loo xam ne jub naa ko ci wax ji rek na ngeen xam ne maanaam xiir rek la ak sama ñàkk xam-xam waaye li ma yéene woon mooy jub in uriidu illal islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh summa salaatu bi salaamin tabia ala allasi xasti an tabia ala allasi man bi maraadi ixtada fi sirri wal jaari yakunu muxtada هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان دينا